njiitu réew mi di président Macky Sall ni ki démb daat nay dalal xaritam bi di président Mbagnick Diop ci palais de la république bi ñuy amal installation commité de pilotage dialogue national président Mbagnick Diop nekk ki njiitu réew mi di gën a déglu ci conseil yi macha allah président Mbagnick Diop njiitul MEDES ni ki démb ci installation commité de pilotage bi mu teewaloon fa secteur privé bi te secteur privé bi am solo lool ci dialogue national bi.